22 heures di fukki waxtu ci guddi toftal na fanweeri simili ak juróom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu auditeurs yu Mouhalim Info ñi ngi leen di nuyuwaat baax di leen ziar tey jii talaata fukki fan ci weeru sulier dëppoog ñetti fan ci weeru tamxarit lu yees ci mbirum xale bi ngeen dégg fan yi ñu ne kon dafa daal di ñàkk bakkanam ginnaaw ba mu labee ci ab bassin dafa daal kon dugg mbir moom nag xam ngeen ne ubbi nañ ci ab enquête waa Sénégal nag ñoo joxe xabaar yi wax daal enquête ba kon jur na lii moom xale bi ñàkk bakkanam ñu fukki weer la amoon daan wékku turu AN ñu ne kon ab néewam jamono ji mi ngi ci hôpital Ndaamaatu ngir ab autopsie ab enquête nag dañu commissariat bu Ndaamaatu ubbi daal nañu daal mujjee xam kon ci yenn circonstance nee ñu la xale bi ñàkkee bakkanam waajuram bu jigéen alo lay wuyoo itam toll ci 18 ans fukki at ak juróom-ñett njëkkoon nañu ko woo dilu ko ci mbir mi booba de la mu waxoon nee ñu mooy dafa waxoon ne dafa bàyyi woon doom ji ci néegu goroom demoon tëddi ginnaaw ba mu añee ba noppi. ginnaaw bi nag la ko xale bu am ñeenti at xamal daal ne ko ñoom ñi ngi xool wër doom ji waaye gisuñu ko ci leen tàbbi nag di ko wër di ko wër di ko wër mujjee kon eh, yëg na xale bi kon naka da ci biir bassin bi daal di dugg nee ñu loolu la njëkkoon a wax ci kanam enquêteurs yi moom ki nga xam ne muy waajur xale bu jigéen bi enquête bi nag ñi ko yor kon moo di ndaw yi eh, kon ñi nga xam ne ñoo di commissaire maam Arouna Ba nekk ci police bu Ndaamaatu ñoom police sax jot nañoo ngir constater bassin bi ak caaju gis ne kon bi mi ngi war a toll ci un mètre Euh, daal ñu daal koy nag euh, euh, tëj daal di koy karale waaye day moom soxna soos di waajur xale bu jigéen bi day ne dañ kaa wóoruwaat fekkoon na sax nag nee ñu coow lool yi commencé sax daanaka andi lenn ci njaboot gi ci ak ñàkk wóor di ko gi ba commencé daal mel na luy indi ak féewaloo ci njaboot gi ne ñoo démb talaata ki jamono di h lañ ko wóoruwaat dilu ko moom allo mii seen web di xam ne ne kon daa mujjee nangu mbir mi ne daal ci moom la xewee jaare ci ak négligence maanaam daal ak càggante daal moom nee na moo juróon doom ji tegoon ko ci kaw bassin bi ngir doon ko wattandikuloo ay melentaan ginnaaw bi nag daal di kon dugg ci waañ wi ngir lekk ginnaaw bi nag bi mu ñëwaatee daal la gis na kon xale bi raam na ba tàbbi ci biir bassin bi ci loo xam ne moom yëgu ko ak tiit nag moo ko daldi kon tax mu daal di gaaw daal di dem yi dugg ci néeg bi ne daal bi nga ko woolee digluwaat ko ci kanamu enquêteurs yi nañu kon moom la soxna si xamle moom soxna si nag di allo jamono ji kon nee ñu ñu ngi ko placé en garde à vue ci commissariat bu Ndaamaatu ngir homicide involontaire faat bakkan ci loo teyul waaye tam def loo xam itam daal dundug nit xaj na ca ak itam fekk koo xam ne daal mi ngi ci dansé te taxawoo ko loolu kon la ñu wax ne moo am ci euh, faatu xale boobu ñàkk bakkanam te ñu xam ne kon dugg ci ab euh, bassin di xabaar bu tiis te métti loolu waa Sénégal ñoo bind xabaar bi doon sax nag ginnaaw bi jotaat nañ ñeneen version yi wax ne kon mbir mi demeewul noonu waaye ñoo ngi diglu rek bu amee leneen loo xam ne Euh, wuute nag lii ñu wax comme ni ñu ko ñi ñu woo waxee itam incha allahu rabbi nee ñu wax naa leen daal na leen bu fekkee version bii daa bokkut ak bi am ñun ñu ngi leen di diglu bu ko ëndee itam daañu leen ko jàllale ndax li ñu war rek ñun li ñu fi nekk rek mooy jàllale li nga xam ne daal mooy la ñu am ngir askan jot ko li ñu bind daal ci français tax askan wi xamuñu ko ñu leen ko jàllale ci wolof rek moo ñu ci yóbbu waaye daal jotaan nañ beneen version yoo xam ne kon mbir mi demewut noonu waaye daal Sénégal daal ñoom li ñu bind ne ñun da la demee waajur xale bu jigéen bi mujj na avoué ci ne daal moom ci càgganteem ci la xale bi duggee ci bassin bi ndax moo ko tegoon ci kaw bassin bi bàyyi ko fi dem dugg ci waa ñu doon wut lu mu lekk ginnaaw bi la ñëw nekk xale bi raam na ba dugg ci bassin bi di lu metti te tiis lool ci xol Mouhalim info